xew nuyu naa maa lay fay. ci loone Ouzin borom wasaare maa ngi sant yàlla. naka dëkk. waaw dëkk baa nii neex rek. Ah, neex na moom tey moom xam naa ci dara. non fii dëkku nante la. bilaay. fii moom dootuma fi géej. non fii moom ku fi ñëwul mënoo xam mais ku fi xas a teew mat bi tas na de. waaw waaw si dëbu ngor suñu rakk la. ñu rakk la suñu lépp la xam ñu nekk ba écurie aussi mu jox ñu kon bu xel la ñu war a def teew rek. naka nga ko gisee. waa confiance te incha allahu rabbi gan gi dinañ ko wàcceel bu soobee yàlla. Thiatou Rebeuss mer la fanaanoo. ñoo ko gën a mer fuuf ñun fi ñu dëkk dafa def le champion. yee te dañ nekk ab génération buy jok am boo ñëwee fii rek saa yoo fi ñëwee ñu lay mel kon nga xam ne ñëwuñu pour ay caaxaan quoi. bi nekk premier combat naka la war a jëflante. non ñun min nañ ko ñun ñi ànd moom min nañ grand combat. kon loolu du problème incha allahu rabbi da daan yàlla. maa la ko foo toll man maa maa ngi waaj loolu. yaa ngi waaj maa ngi waaj bu bu baax a baax. combat bi kañ la. amagul dat mais su ma ñëwee dinañ xam ne ñëwaat naa. dafa am lu waa làmb di wax si suuf te dama bëgg ñu koy wax si kaw. lan la waa làmb di wax suuf. dañuy wax si suuf ne champion laa war doon. dama bëgg ñu koy wax si kaw ma koy dégg. te loolu maa koy wane li tax ñu koy ñu koy wax si kaw. ci yoon boobu laa ne. kon taw feeñ.